alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sabin nawali wali barke borom taif sama ata cheikh muntaqa mbakke maam Serigne muntaqa mbakke xaadimu rasul mbakke noo ngi tuub balla noo ngi lay siyaare jox sa yéeguwaay sunu borom mi nga xam ne mooy def ak a dindi mu feeñal kéemtaanu gudd fan gi sa jëmm ji ba Mbàkke mbooleem yitte ji nga am ak yéen liggéeyal Serigne Touba nga mottali ko te boo gestoo gis ko maa ngi tuub kàddu yi may yëkkati ci sa kanam ci turu mbooloo mii nga xam ne moo nekk nii ci sama ginnaaw mooy muy daayira maam Soxna Jaara fédération bi lëkkale mbooleem daayira Soxna Jaara yi nekk Italie toll ci fanweeri daayira ak juróom ak ñeneen yoo xam ne ñoo ngi waaj a ñëw Mbàkke yàlla nañ ko yàgg andi yàgg la fekk te nga nangul ko liggéey bii nag Mbàkke dafa am jëmm ju baax ji ñu ci àndaloon muy soxna Sooda sàmb sun borom def nekkaayu sama ju baax ja muy Cheikh mu Moustapha moo ko joxoon liggéey ndigal ci liggéey bi mu ànd ko ak Serigne Cheikh ak bokk yu baax mu di ko doxal di ko doxal ci daayira ba fédération bi taxaw ba yàlla dogal sunu borom jëfandikoo ci moom coobareem mbooloo mi ñu ngi la koy siyaare di la ko jaare waaye di la sant ci taxawaay bii nga taxawu soxna Sooda ndax mbooleem Mbàkke loola waroon ci sa jëm diggante ak moom. def nga ko ba mu mat kon yàlla na la yàlla fay ak soxna jaara man doon liggéeyal sëñ Cheikh ngi may fàttali ma soxna Sooda mii toog ak sëñ Isaaxa ndigal la nga leen joxaloon nu taxawu soxna Sooda dara manqué wu ca Mbàkke lépp agsi na noo ngi la koy séeréer di ko séeréer mbooloo mi mbooloo mi nag Mbàkke sa taali bi bii di soxna Ami Samb moo ko jiite ànd ko ak ku ñuy wax soxna May Njeng ak ki nga xam ne mooy soxna Awa waaye nag ñu jiite ci seen kanam seeni jëwriñ muy sa taalibe bii toog muy ne soxna Sooda Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Bachir muy soxna Astu Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Moutada sa taalibe yàlla dafa dogal yoon wi fekk ko Amérique nekkoon Mbacke na mu ko daan teewe nu ko àndoon nañ ko daan ànde ak sa taalibe bii toog muy soxna May Munatu Mbacke sa mos ak soxna May moom Serigne Mbacke fa jama ak mboolem soxna yi nekk sama ginnaaw muy soxna Khady Diagne soxna Anta Babou soxna Fambaye Seck ak soxna yëpp. Mbacke noo ngi jégalu kàddu waaye fas naa leeral liggéey bi nga xam ne at mu nekk Mbacke ñu andil la ko waaye ànd ko ak jëwriñ yi nga leen booleel muy sa rakk yu baax sa taalibe bii di Serigne Isaaxa sëriñ Abdoulaye Serigne Moustahine ak Serigne Cheikh Mbacke mii. noo ngi andi seen addiye di la ko jébbal muy addiye Poroxaan toll ci fanweeri million teg ca addiye xalifab Seexul Xadim topp toll ci 10 millions. ngay liggéey Serigne Touba ci xam-xam muy université bi ñu def ci ñetti million waaye siyaare na Mbàkke yow lu toll ci million mboole seen muy euh, ñeent fukki million ak ñeent fanwe ñeent fukki million yi chèque la ci banque islamique leneen li argent liquide la mooy xaalis bu teew abadan tataw si atam bil ib أبلغتني لسوى مظائمي وما أو تسوء يا الله أنت الودود لسين خاد الموادة لسرمدا بريلا والقرب يا الله lii moo jëm ci liggéeyu Serigne Touba bi ci université bi ñetti million la مبتلي منك مجدا فاخ يا الله وإنك البعيس المقيم بلا ضرر كويتني جملة الأدار يا الله أنت سيد الأسين هذا سعادته Mbacke lii nag suñu addiya addiya daay bi sa jëm gi tedd ji sa addiya un million la ngir leeral la liggéey bi rek Mbacke soxna yi liggéey mboolem liggéey yoo xam ne yëkkat nañ ko ci ngir jàppale ko liggéey sëñ Tuubaa yi dugal nañ ci seen loxo nañ ko daan defee maawu raxmat danañ ci def ñaari million orphelinat Maam Jaara bi nga xam ne fooy mooy fëra jëri mi nekk mu sëñ Moustapha Diop ñoom ak sëñ Fallou Ndiaye danañ fa yóbbu ñaari millions ni ñu ko daan defee at mu nekk leneen li ci des Mbàkke Balla mooy wàllu parrainage yi di liggéey bu la ñor lool nga boole sëriñ Isaaxa mu def ci liggéey bu kawe ba yàlla dogal na am nañ ci téeméer ak fanweer ak ñaar mu toll ci 31 millions 363 mille 200 chèque baa ngi nii parrainage bi mooy ndey daara yi parrainage bi 132 lañ ci jaay téeméer fanweer ak ñaar doon 31 millions 363 mille 200 li ci tege Mbàkke mooy carte maam jaare yi taxaw nañ ci taxawaay bu rafet ba jaay nañ ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk muy 1750 versé nañ ko sëñ Abdou Lahad mi ngi toll ci 17 millions 325 mille fukki millions ak juróom-ñaar ak 325 mille liggéeyu Touba ca kanam bi itam Mbàkke jënd nañ ci carte yi barkeel nañ ci toll ci 14 millions 600 jébbale nañu ko noo ngi lay ñaanal nag balay suñu borom sàmm la yàggal la fi may la wér ba mboolem loo bëgg liggéeyal Serigne Touba nu ànd ko soxna yi Mbàkke ne nañ sagu nañ seen xool sedd na ndax. séeréer nga leen ba tey ni ñoo la fekk Porokhane ñoo ànd ak yow liggéey bi bëgguñu lam bëgguñu jaaro bëgguñu mu rafet nekk ca dëkk tubaab ya di boole seen i benn ak seeni ñaar ba mën a andi ak yi ju nii nga ñaanal leen yàlla gën leen a ak seeni i kër ndax soxna su nekk borom kër ma ko fa yóbbu wala mbokkam kon ñëwagu borom kër suñu borom defal leen ko ñi nga xam ne yàlla dogal na am nañ ko suñu borom jubal leen seen i borom kër waaye tamit njaboot gënu am. sunu borom dimbali leen gàttanu leen sa feex Mbàkke yow mii gàttanu seen tawféex ba civilisation occidentale muy yarub tubaab ak seen aada du man ci ñoom dara ban ay murid sadiq ba lañ fa tàmbali ñoom ñu man koo àggale li may jeexale Mbàkke maa ngi tuub kàddu yi sama waajur wii di soxna Ami Samb jiital liggéey bi noo ngi sa yalwaan nga ñaanalal nu ko ndax ñetti at yëpp demul ndax dafa amug wéré di ci wàllu bët yi addiyaama ngi nii soxna soxna Ami nee na mi ngi sàkku ak ñaan nga ñaanal ko liggéey bi mu am yéene ci mbooloo mi suñu borom mottali ko fi ñu jeexale rek mooy nu ngi sant ñii nga nu booleel muy Serigne Isaaxa ak Serigne Cheikh ak Serigne Blaat liggéey bi rafet na lool Mbacke maa ngi dénkaane sa bopp nag sa doom sa taalibe Cheikh Mbacke mbuub moom a Asan mbuub moom sëñ Mbacke soxna loo bëgg la soppare di ñaan sunu borom sama sa fan bi li ma desi jug dund ma jox la ko at yi Serigne Touba nga liggéeyee ko Serigne Touba nga liggéeyee ko Serigne Touba sa jëmm sa taxawaay lépp sa lépp dafa so lépp lépp daa soññee Mbàkke yàlla nga fi yàgg mu ne waaye saw fan na ko suñ borom yokk lool amin mu ne gàttandul ak ngërëmal sëñ Tuubaa mu ne xam na sa taxawaay ci liggéey baax sëriñ bi mi ngi wax alhamdulilahi rabil alamin soxna Ami Samb sëriñ bi mi ngi leen di delloo am nuyoo yéen ñëpp mu ne di leen delloo ziyaare bi tam mu ne na ngeen xam ne tey jii amati na mbégte mu rëy rëy mu ne ci seen taxawaay bu rëy bii ak seen jëf jubaax ju sel ji mu ne na ngeen xam ne yëg na ko lool mu day tegtale ne mu ne bi ngeen li ngeen nekkee ci àll bi muy am pësteefu liggéey sëriñ tubaa mu ne lii ngeen def loolu rekk la tegtal mu ne waaye alhamdulilahi rabbil alamin nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal suñ borom mii dafa a dindi gën leen a gàttandoog tawféex sëñ Tuubaa seen lépp gën a yëwén gën a yemb gën a yomb gën a barkeel mu ne mi ngi leen koy ñaanal bu baax a baax mu ne gannaaw sàmm sama borom suñ borom may leen wér may leen fan wu gudd bu ànd ak kàttan bu ngeen gën a mën a àggale seen liggéey mu ne xolam sedd na bu baax mu ne lépp nag ñi ngi jiital ci cant gi kilifa yi muy soxna sooda mii toog ak sëriñ isaaxa mii soxnaa mi sàmb ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax moom moo ci jiitu soxna sooda sàmb mu ne loolu ñun ñëpp nangul nañu ko mu ne kon nag alhamdulilahi rabil alamin ginnaaw jébbal nañ ko sëñ Touba na ci xel dal bu baax mu ne ndax lépp lu mën a doon mu ne taxawaay rek la mën lay laaj mbir mu mën a doon taxawaay lay laaj mu ne day wax ne taxawaay nag moo mënta ñàkk waaye moo jafe mu ne waaye alhamdulilahi rabil alamin mu ne loolu boo ko boolee lépp mu ne tawféex ju sëriñ Touba ji ngeen am rek la ngeen bokk yi ñëpp mu ne kon mi ngi gën a ñaan rek suñ borom gën leen a gàttandoog sëñ Touba sëriñ bi gën leen a gàttandoog ngërëmam nag mu ne loolu rek la leen ñaanal jërë ngeen jëf tubaarkàlla la kon na ñëpp tàlle seen loxo bismillah المنى بآسي سن منك يا الله لك التجائي بما لقيل يا سمادي بسرا لجملتي من أحببت يا الله عزيت يا قادر المغسول ممتلئا إلى سوى ما لك تعميد bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaam ala rasuulillaahi barke borom Taïf mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare eh, di nuyu ak di ziyaare mbooloo mi nga xam ne ci seen kàddu ak seen jëmm seen jëf ci la ñuy yëkkatee kàddu waaye ci la teewee ci kanam Serigne Touba mu Mountakha Bachir muy fédération bi lëkkale mboolem njabootu soxna jaara gi nekk itali wala toll ci fanweer ak lu topp. di ziyaare bu baax nag ak di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol seen jëwriñ ji di soxna bàjjan sunu bàjjan soxna Ami Samb di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye di ko ñaanal mboolem ñu màndal liggéey Serigne Touba ñëpp bu ma ko tuddee rek ginnaaw jiitu ci bopp bi. dinaa tuddale ñëpp ñi mu àndal waaye nag di fàttaliku ci ñaan sunu wëyjuru baax wa nga xam ne liggéey bii ci loxoom la ko mu Moustapha tegoon muy bàjjen Sooda Samb yàlla na ko fa mu nekk dàqal fi mu jóge lépp lu mu liggéeyal soxna jaara yàlla na ko fa fekk. kon nag euh, jëmm jooju ñu àndoon di liggéeyal soxna jaara yàlla na ko liggéey bépp mu defa soxna jaara fekk foofa fekk fa mboolem ku jiit te bokkoon ci mbooloo mi ñi fi des ne nag yàlla bàyyi leen fi. nu ànd ak liggéey bi yàgg ko andi Serigne bi mu nangul na ko ci barke Serigne Touba maa ngi jox nag sama kàddu soxna Faati Mbeng nga xam ne yàlla dogal na liggéey ba ñu ko tàmbalee ba léegi mu ànd ko ak bokk taalibe yi newoon tamit bokk ci jëwriñ yi di ziare Baye Cheikh sëñ Babacar Diouf sëñ euh, Ablaye Silla ak mboolem ñi nga xam ne ànd nañu liggéey ak Pape Demba Dia ak mboolem bokk taalibe yëpp kon soxna euh, Faati Mbeng Touba Bergamo daayira soxna jaara ñëwati na tey jii di gaawu le 6 août 2022 fii ci Daaru Minane andil seenub liggéey ki fi nekkal Serigne Touba nekkal fi Soxna Jaara nekkal fi Cheikh Mamadou Bachir muy Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir yan kàddu nga ci sànni. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuhu. gannaaw ban sante yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed ñoo ngi sant Cheikh Al Khadim bu baax a baax di ko sant bu wér a wér a wér. di ñaan yàlla ànd bi nu ànd yal nan dund ba di ko def ba suñuy sët ak suñuy sëtaat di ko def ndax rafet na sell na dëggu na ndax nee naa la nee naa la waa Italie jigéeni Italie ay gaynde lañu gaynde lañu nanga nañoo liggéeyal Serigne Touba nanga nañoo liggéeyal Soxna Jaara kon loolu yaakaar naa ne lu firndeel liggéey bi mooy tey jii ziar bi ñu ziar nag di ñaanal sëñ Mouta sëñ Mountakha Mbacké yàlla suñu borom bi bàyyi ko fi. may ko fan wu gudd wu ànd ak akuk wér. ndax kat moom mooy suñu mbégte. mooy suñu fierté mooy suñu tiitar. sëñ bu ñu ko gisee luñ mënoon a am rek day day yokk ci ñun suñu mbégte day gën a yokk. di di nuyu képp koo xam ne nag teew nga ci ziar bi te teewal fi mbooloo. di di ziar di nuyu soxna Ami Samb moom di ko ñaana sàmm Malick yal na yàlla yokk wér gi may ko ak gudd fan mu yàgg fi lool waaye nag ñu fàtte suñu yaay ju baax ja muy yaa sooda sàmm nga xam ne lu jën njaagay wa sàmm Malick te mooy njaag ñoo ngi koy ñaana yal na suuf su bàqee sedd guy ci kawam ci barke nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ak kum fa fekk ak ku ko fa fekk di di ziar ñëpp képp koo xam ne daal yaa ngi woon ci barab bi rek ñu ngi lay ziar jërë ngeen jëf. jërëjëf soxna Fatim Mbeng kàddu yu rafet na jox kàddu gi sunu bàjjen soxna Ami Sam mi nga xam ne moom la yàlla def mu ne ci bopp fanweeri daayira ak topp yi nga xam ne ñoo composé fédération daayira soxna jaara Touba euh, Italie asubilahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi di sant seexul xaddim bu wér di jaaraama maam jaara di sant yàlla nag bi ñu yàlla fekkeloo ñu teewaat fi di ñaanal sëñ Mountakha yàlla yàggal ko fi lool te mu wér yàgg jiite liggéeyu maamam bi mook rakkam yu baax yi sëñ Isaaxa ñu topp ci seen ginnaaw ànd ko ñoom ah di ñaanal bàjjan Sooda sàmb mi nga xam ne itam moo jiite woon liggéey bi ba mu yegg si fii di ko ñaanal fa mu nekk yàlla na ko soxna jaara mam daan liggéeyal teeru te it am nañ ci njootul rafet kon yàlla na ko yàlla la fal ca di siyaare nag képp koo xam ne rek présidente daayira nga taxaw ndax euh, daayira bi fu mu toll rek bu ma yeboon ne mbooloo may ko fi tollal te it mbooloo mi ñoo nekk ca seeni ruq di dajale seeni àddiya di ñu ko jox ñu di ko indi kon ñooñu lañ war a gën a sant muy présidente daayira yi di leen sant bu baax ak seen mbooloo di leen wax seen liggéey rafet na suñu xol sedd na ci ñu gën a laxasaayuwaat góor góorgóorlu xam ne defuñu dara ndax euh, liggéeyal sëñ Touba yaakaar naa ku koy def euh, bu waroo bëgg dara du lam du mbubb du dara boo amoon fukki junni def ko ca tàllal sëñ Touba say loxo yaakaar naa lu ñor euh, téeméeri junni dina ñëw ci sa loxo kon lu ñu am ak lu ñu amul lépp ni ko sëñ Mountakha di waxee nañ ko ci def te xam ne liggéey bi rek ay dëgg di sant ñëpp nag di sant Cheikh Mbacke bu bu baax ndax yàgg naa ànd ak ñun ci liggéey bi te booba ba léegi mu ngi ko ànd ak ñun du dërëm buñ koy jox du fifteen buñ koy jox muy taal esaasam di ànd ak ñun di ko lakk. jël kàttanam yëpp di ko ci def kon ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant mbooloo mépp daal bu ñu limee dinañ juum mbooloo mi itam liñ dama euh, ku lim dinga nga juumante soxna soodam sëñ Basiru lañ waroon a njëkk ci sant gi ak soxna Asu Mbàkke mu sëñ Mutala ak soxna may mu sëñ Mutaka ak soxna may ma ndax euh, yaakaar naa ne ñoom manoon nañoo toog rek bañ a joxe addiya wante addiya ji ñoo ciy ëpple ñoo ciy gën a sonn kon ñoom ñoo waroon na njëkk ci sant gi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla ñu yàgg ko ànd ak ñun te yàgg leen fee fekk. amiin yaa di nuyu ñëpp nag di siyaare ñëpp di leen balu ak te di leen baal ak asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Eh, jërëjëf kon eh, nu ngi sant bu baax bala maa jox kàddu gi soxna May ndax moom mooy sunu kilifa ndax mooy jëmmi Cheikh Mouhamadul Mountakha ci biir mbooloo mi. kon moom laa jox kàddu gi moom mooy tëj waaye nu ngi sant bu baax sunu jëwriñ ku mel ne soxna Sooda Mbacke bintu Cheikh Mamadou Bachir at mu nekk nooy ànd ak moom liggéey bi noo ngi sant soxna Astu bintu Cheikh Mamadou Moutada soxna euh, May Mbacke moom Serigne euh, moom euh, Serigne Mor Mbacke fa jama ak nag soxna May Munatu Mbacke mii nga xam ne bintu Cheikh Mamadou Muntaxa nga xam ne mbooloo mi guddi ak bëccëg suba ngoon defu doonu ci kilifa waaye da cee doon ab taalibe nga xam ne Sëñ Tuubaa li ci jëriñe du bokk ak jërëjëf waaye pas-pas la ak liggéey. te loola Mbàkke ci la nekk nu ñaan yàlla na yàlla bàyyi ak sa wajur yi bàyyi noog moom ba li mu bëgg a liggéey sëñ Tuubaa motali ko noo ngi sant sëriñ Isaaxa ndax liggéey bii ba ko sëñ bi tegee ci loxoom ba léegi gis nañ ñëpp jéego yi mu ci def yàlla na ci am ngërëmul sëriñ Tuubaa noo ngi sant baax sëriñ Cheikh Lappé gis nañ taxawaayam noo ngi sant sëriñ Moustahine ak sëriñ Abdoulaat waaye di jaajëfal nag jàmbaar ya nga xam ne ñun bu ñu toogee fii ñoom lañ fa nekkal secrétaire général Fatou Sila Mbeng trésorier général waa Parma siggi nañu ami Cissé ak mboolem ñu ñu àndal ci fédération bi ka njëkk a jënd carte ba ki mujjee parrainage yaa ngoog carte yaa ngoog bu leen ci kenn man sëriñ bi nee na yéen dong yéen a ko fekk ci liggéey bi fii la ko waxee maa ko jotali kon nag noo ngi ñaan yàlla nañ fi dajewaat déwén kenn bañ a manqué lu nu andi bu dee ñu téeméeral ko yàlla mën na ko noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ma jox kàddu gi soxna May bint Cheikh Amadou Mountakha Khadimu Rasoul bu jeexalee kàddu nag ñaanal mbooloo mi ba déwén ak jàmm. waaw euh, sincère ok asalaamaaleykum wa <laughs> jéglu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu eh, ngi eh, nuyoo di siyaar di jéglu bu baax di santaat bu baax sunu borom di sant Seexul Xadim sunu yaakaar tey ak ëllëg di sant Seex Muhammadul Muntaxa waaye di kàddu yi moom daanaka sëñ Seex du kàddu yu am solo li fi ma doon wax nañ ko xanaa kàddu yi cant la ak ngërëm ak kàddu yi ñaan ak ñaan rek la di xam la ne moom lii moom mooy seen baax yàgg ngeen ci naka jekk ba ngeen jógee ba tey ci lii rek ngeen ne di sant bu baax soxna uh, Ami Samb jawriñ mi nga xam ne bala nga koo xam dëgg sax fekk ko ca réew ma nan xam naa ci dara uh, di sant bu baax mboolem waa jataay bi yëpp rek bu ñu limee dañuy juum baa ñu fàtte sonanta baa soxna Fambay ñoom ñëpp mm. di sant bu baax yow sëñ Seex xanaa di leen ñaanal rek ci barke Seexul Xadim yéene ji nga xam ne moom lañ am li yéene koo liggéeyal soxna jaara yàlla na yàlla yeggal yéene jooju ci barki sëñ Touba xanaa di fàttali ko rek sono sono sàmb di ko ñaanal mhm. njéggal ak yërmane ci mhm. barki seexul xadim loolu sëriñ bi wax ne bàyyi na ko sëriñ Touba jox nañ ko sëñ Touba loolu doy na sëkk waaw jàmbaari fàkk tëdd la woon joo xam ne kenn mënu koon a xam ni mel waaye nag loolu rek moo am solo mhm. te nag lii rek bis bii rek li mu doon def lépp daal mën naa ne lii rek moo taxoon kon tey du ko rëccu fa mu nekk yaakaar naa moo koy gënal fuuf fa mu jóge waaw kon nag lool rek mooy li am solo ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan ci barkeb sëñ Touba yàlla na yàgg yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi di nuyu bu baax sunu bàjjen soxna Soda di nuyu soxna sunu bàjjen soxna sunu xarit soxna as Thierno sunu mag di ko di ko di ko fi teewal ñun ay dong rek la ñu <laughs> ab taalibe rek la nu baax na jërë ngeen jëf jërëjëf soxna May ñu ngi leen di fàttali kàdd yoo xam ne ni ndigal la Serigne Cheikh Lappé agsi na ci mooy daayira bi ni nga xam ne noonu lay feeñ ci liggéey seriñ tubaay yi moo xam muy Maawu Rahmati moo xam muy euh, orphelinat ba moo xam muy université moo xam muy Touba ca kanam moo xam muy carte yi ak parrainage bi noonu la Serigne Cheikh Lappé wax ni sëñ bi bëgg na ñu feeñu noonu ci mbalem Touba mi. mbalem Touba mi liggéey bu am solo la ndax dëkk Sëñ Touba ku ko setal Sëñ Touba dana la setal setal adduna setal la alaxira kon ndigal laa noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñi nga xam ne amoon nañ yéen a ñëw ñi ñëw ak ñu ñëwul ñëpp yal nañu yàlla defal fajug aajo deful sandisu daara ni te dugal nu ci waqdi en waaxi jëlli si na daamoo fii xitmati wa ablahu maramo noo ngi sant ak di ziare sëriñ Mamadou Cheikh Mouhamadoul Moutada jàmbaar l'islam l'avocat de l'islam l'avocat des immigrés ci liggéey bu rëy bi muy liggéeyal sëriñ Touba te lépp rek di benn noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Euh, jërëjëf euh, mbokk yi euh, kon ginnaaw bi nga xam ne yàlla dogal nu am jotaay ak ku tedd kii di Serigne mu Serigne Mountakha Bachir noo ngi fii ci ëttub ab taalubeem di jëriñam di soxna Soda Mbacke bintu Cheikh Mouhamadoul Bachir nga xam ne at mu nekk moom la ñuy àndal liggéey bi yàlla na yàgg lool te ànd ak wér bi yàlla dogalee itam sunu borom ñëw ci coobaram ci bàjjen Soda taxawaay bi mu ci taxaw ci ndigalu sëriñ bi moo ko sëñ Isaax ñëpp gis nañu ko kon nag Mbàkke yàlla nañ fi yàgg ñëw yàgg la fee fekk xam naa rek eh, eh, kàddu yu jëm ci mbooloo mi bu ko defee nga ñaanal leen tamit nu yàgg fee ñëw yàgg fee indi addi te ànd ko yéen sëñ Tuubaa nangul na ko waaw waaw waaw sax ndax kon ñu weesu ko leen di sant di leen santal soxna jaara nag di leen santal seexul xaddi mi nga xam soxna jaara da koo ñor lool li ci topp mooy di fàttaliku eh, seen jëwriñ ji mm-hmm. nekkoon sama loxo ndeyjoor ñu soxna Sooda Sàmb kenn du ko fàtteeku liggéeyam waaye yéen ñi àndoon ak moom te nangoo ànd ak moom te bokk liggéey bi eh, yéen nekk ci nekk ak moom ci liggéey bi li mu ci bëgg lépp ngeen def ko ci yéen yéen yéen bokk cant gi ñu leen di sant bu baax li leen ñaan ngeen yàgg taxaw ci ginnaawam di jëf-jëf ji te ñu ànd ko yéen ñaan sa di leen santal sëñ Muntaxa nag moom sëriñ Basiiru ndax yéen jàpp ngeen ci yéen jàpp ci liggéey bi jàpp ngeen ci liggéey bi soxna jaar bi kon yàlla fay ci barke sëriñ Touba jërëjëf sant naa leen bu baax gërëm leen jërëjëf kon ñu tàllal soxna si defal nu ñaan loolu la euh, minam indi woon ànd ak El Hadj Cheikh Mbacke mu géwëlu Xadim Rasul nu yàgg ko ànd sëriñ bi nangul na ko ci barke Cheikhul Xadim amin amin